ci guddi yi ci jamono yi ñëpp xam na ne Covid bi bi mu amee léegi lu mat taxaw taxaw na ko lu mat a def jël na ko def ko wane ne mooy mooy jiite euh, bato bi nga xam ne mooy bato mooy Sénégal kon euh, loolu ñu ngi ko ci njukkal bu baax a baax a baax waaye nag di ko wax ne ko ñu ngi koy ñaan euh, ci nu mu gën a gaawee rek mu taxawal beneen gouvernement boo xam ne nii. day am première ministre euh, boo xam ne ni dana dox diggante mag nit ñi ndax euh, Sénégal dafa am lu mu baaxoo ak lu mu laaj ca euh, it lu ci bëree bëri ba nga xamee ne dem na ba duturir gouvernement bi fi nekkoon ba ne day def fast track maanaam dox nañ ci ay jéego yu am solo waaye li ëpp solo ci réew mi mën na noo wax ne ci ay njàngat mu def premier ministre man ci sama conseil bopp loolu laa koy wax tëraat gouvernement bi ñi nga xam ne ñi ngi ci biir gouvernement bi ca doon ñeent am ay ambition ñoom ci seen jëmmi boppam ah mu mu teel a xam fi mu jëm ak ñoom parce que ku ne am nga droit am ambition nit ko amut amut mais nag tous les façons bu fekkee ne nit ki dafa nekk ci euh, benn gouvernement kooku amaat quatre ans yu mu desee war a di liggéey ngay liggéey ngir sa ambition bopp loolu dañ cee war a jël ay matukaay ak nu mu gën a gaawee mu jël ci ay matukaay parce que loolu mooy li ëpp solo ci guddi yi ñu toll beneen bi ci desit mooy ñi ànd ak moom nga xam ne ñi ngi ànd ak moom ci wàllu liggéey bi ca ba pare maanaam képp koo koy jàppale ku ne boo amee xalaat boo war a xalaat mu jëm ci côté ba mu féete ca département ba wala région ba ngir di jàppale président nga war ko koo wax boo ko woowee téléphone du ko jël boo bo bo boo bëggee toog a moom du am ci opposant yi di leen woo ñuy jël euh, opposant yi di dem di leen seeti ñuy jël ay marché ak lu mën di doon di leen ko jox loolu ñu arrêté ko ak nu mën a demee président jël ci ay matukaay ndax am na ci ñenn ñoo xam ne nii tey man mii di wax yow jël naa sama téléphone woo leen opposant yi woo leen ci sama ñu jël ma ñu jël opposant bu man jëluñu ma téléphone li wér ci wóor mooy nan arrêté mbir mi ci jàppale président président na tas gouvernement bi ñi bëgg a ànd ak ñoom wala ñi am ambition mu tàggoo ak ñoom ñi nga xam ne tamit bëgg na ko ñu ànd moom quatre ans yi parce que sénégalais loolu ko doon loo xam ne duñ ko président la ñuy ñaan mooy seul comptable de ce pays ni ci jël am yi fal nañ ko mi ngi liggéey ngir réew lu ne mi ngir réew mi engagement yu ngi koy def ngir réew mi waaye ñi ànd ak moom ne am na ci ñoo xam ne du ñëpp nag waaye am na ci ñoo xam ne na xool ay engagement yu muy lu muy doxal ci ñoom ak lu muy def ci ñoom am na ñoo xam ne guddeeg cëg ñi ngi daw waaye ak képp koo xam ne ni tamit yëkkati ngay kàdd wala mu nga doon koo xam ne am nga benn intention wala ñu ngi dem di masla ngir yow ngir yow ci sa boppam nga nga comprendre wala nga doon loo xam ne ni lépp luñ ci man ñi ngi ci jàpp pour waaye am na ci ñoo xam ne ni doxaluñu loolu jëfuñu loolu waxuñu loolu kon loolu it tas gouvernement bi jël ci ay matukaay ñi war a ànd ak moom ànd ak moom liggéey ba nga xam ne Sénégal yi seen coono bi nekkit loolu dana jeex incha allah ndax président am na ambition pour liggéey Sénégal yu ci bëree bëree nag jëm ci ministre yooyu jëm ci yeneen danañ am temps pour wax ko ci danaa tudd seeni tur parce que am na ci yenn yoo xam ne nii rafetut jékkut jaaduwut ci koo xam ne ni da ngay jàppale am njiitum réew ba pare wañ nga wañ ko di ko ci di ko doxale yu beneen bi ci desit faaw mu wax ci muy lu jëm ci euh, euh, lii fi am ci affaire Cissé Lô bi dëgg la man sëñ Modou Bara Dolly yaakaar naa ni combat bi fii maa ko njëkk a jiite ci département bi parce que ku ne xam na ne euh, egg naa ci def marche sax ci biir ci Mbàkke gi def marche boo xam ne nii pour ne Sénégal Cissé Lô dégage ci ci département bi mais depuis boobu léegi si ku ne dégg na ma sama kàddu ma yëkkati ko muy guddi muy bëccëg. pour rekk ne li fekk mi ngi ci parti bi ah mën na wax ne duñ gañe dëkk bii waxuma la fu mu jaw daw jamit foofu duñ ko gañe ndax lam wax Casamance wax ko fii ci Lebu yi def ko fii ci Touba loolu mënut a ànd ak gañe léegi nag ci biir wax jooju li may wax jëmale ko ci wàllu saaga yi saaga dafa am loo xam ne nii ñun waa Sénégal moomuñu wax yu mel noonu moomuñu jëfin nag ci saaga yi saaga yépp dama ne yi ci gën a garaaw du ay affaire Farba ay affaire yu yaa xam ñett ci gën a garaaw yoo xam ne nit ñi bàyyi ñu ci xel benn bi ku mel ne soxna Marème Faye Sall man wa jëkkëram laa ko seqal donte du seq seq ma ko moom donte tuddaa ko tuddaa ko doom dooma jëkkëram moo tax ma def ko jëkkëram jooju tax ma def ko seq ak moom it kóllëre gu noonu moo indi lu mel noonu donte jaxasoo ma ak moom xam naa ne li ma xam ci moom moo di nit ku daal la nit ku la koo xam ne ku lislaami la nit ku bëgg lu baax la nit la kuy jàppale jëkkëram nit li kuy jàppale euh, waa waa réew mi loolu wax bu ko gën a ñaaw mënut koo féeti kaw kon loolu laa njëkk a dénoncé man du ma dénoncé ay far farbaak ay affaire yaa xam yooyu taxuma may wax loolu laay njëkk a dénoncé beneen ba ca tegee ku mel ni njiitum réew mi nga saaga woon ko fi wàññi ku ñëwaat yow ci sa jëm boppam naan lii may saafara bu nga ko saafarut danaa boole ñoom ñëpp da gàttal ku saaga loolu mooy wax bi gën a ñaaw waaye wax bi ma gën a ëppal importance gën a garaaw ci nit ñi ci nit ñi bàyyi ñu ci xel lu toll ni xalifa général des mourides Serigne Touba Serigne Mountakha mii nga xam ne képp ku fi nekkal Serigne Touba liggéeyal na la ba tey mu nekk Serigne Touba boo demee ba wax ne ay wax yu bon naan mën ko def ay live di ko di ko yóbbul loolu képp muy li gën a ñaaw gën a rëy ci nit ñi sax dégguma ñu wax ci te ñun amuñu lu dul Serigne ñu ñun murid te yow nga ne Touba nga dëkk kon yooyu mooy wax ji gën a ñaaw ci waa Touba bàyyi ñu ko xel waa Touba nag damay dem ba yàgg ma ne ñoom lan lañ bëgg waa département bi nit ku nekk yow amul lu njariñ taxawu la wàññeeku di la xeex ah da war a sant yàlla bu bu demee président nag ak comité discipline engagement bi nga xam ne jël na ko te comité discipline du jël benn engagement boo fekk ne ki nga xam ne mooy président parti bi yëgu ko kon nit ñi wax nan bàyyi wax jooju la am solo mooy jël nañ ay matukaay yoo xam ne nii keneen ku ko defeti ci parti ak koo man a doon ñu dàq la li wér ki wóor nag mooy euh, euh, euh, nit ki du caagi ne ànd na ma ak yow ànd na ma ak yow ba nga falu ah ba ngay falu am na ci yoo xam du ma ci delluwaat waaye ba ngay falu ànd na yow te ñëpp xam na ne Ablaye Wade bu fekkoon ne la nga wax ak moom wala discuter ak moom pré boobu ma nongoon na ko kon doo ànd ak Macky Sall loolu duma ma ci dellu wax naa ko ci ay vidéo yu jàll mais li ëpp solo bu ëpp solo mooy du ma ànd ak nit ki ba tax na. waxtu wu ne ma toog ci bopp ni lu ma neex wax lu ma neex man mii di wax yow saaga na ma sama waajur bi mu nekkee ci parti démocratique ba ma def ko plainte mi ngi dig boo demoon di gis ah, di kon day dem ba réew ki lu ko neex mu def ci loolu président de la république moom du façon nit yu mel noonu du ku ma ku am ndey wala ko mun ndey fii nag ci département bi maa ngi lancé appel boo xam ne képp koo xam ne président Macky Sall moo la taxoon a jëkk ci président Macky Sall nga doon jàppal tàllal nañ leen loxo ñun ñëpp ñu ànd liggéey fas yéene nekk ci derrière président Macky Sall li ma gëm ba gëm ko daal mooy bu nu ànd lëkkatuloo président moom ci jëmmi boppam it xam suñuy wëlër ñun waa département bi parce que ndaw yi fi nekk sonn nan lool ñi fi nekk sonn nan lool mu jàppale ñu ba nga xam ne politique bi day sens ci dëkk bi parce que bu masaa ñëw sama casquette sëriñ bii ñoom ci ñoom lay yem ñoom nag du ñoom ñoo wàcc ci terrain bi ñoom ñooy dugg ci nit ñi faw politiciens yi fi ne côté boobu mu jël ko au sérieux jàppale ndaw ñi jàpp jàppale ñi fi nekk ñoom it ñu ànd nekk benn bu boobaa dëkk bi dana ko mën a gañe sant nan yàlla nag moom bi nga xamee ne moom it dem na wala dàq nañ ko ci parti bi parce que lu bari mi ngi am ci dëkk bii président wala ñi ànd ak moom dañ fi ragal a dugg pour jàppale euh, président ci dëkk bi parce que li koy waral mooy lan mooy ku fi dugg mu yàkkal lu mel na ne xayit wala mu engagé la wala nga am loo ragal wala président bu demee def nañ fi cadre de unité plusieurs fois yoo xam ne président euh, tey taabalam boo demee da nga fekk dossier audience bi war a am ba mu ko yëgee mu mu yàq ko nga xam ne président mu toogati kenn ku bokk ci département à cause de pour daw coow lu si kon tey yéen waa département bi damaa gëm ne nit ki bu nekkee ak yow pendant sept ans huit ans. ànd ak yow ñu ci bari faluwuñu ñu ci bari jàppale ñun ñëw ñu xëy ay ndaw ñu ci bari jàppale ñun liggéey ci képp koo xam ne ni bëgg nañ koo jox ab cër mu jëkk xeex lu mel noonu kon tey bu ko daqee ci parti da ngaa war a santaat yàlla yow di xoolaat un yii di ñëw nan la président di war a taxawee ci parti bi ci département bi wala un an yii di ñëw nan la président di def waa département bi boo demee nag ba un an yi mat nga xam ne gisoo dara bu boobaa bu la neexee nag war ngaa mën a jàkkaarloog ki nga xam ne mooy sa leaderu parti wax ak moom ñun xamante nañ ci suñu biir kenn ku nekk xamante nañ ci ak ak ak sa morom li wér ci wóor bu ñu defee unité ànd nekk benn ah ñun kat ay xel yu bari fekk nañ ñu ci dëkk bi kon ku yàlla bind moom loolu ma leen wax ak ragal xamuñu ko ci yow.